njiitu service national d'orientation professionnelle bu jëwrin bu jité walum xeyya ak walum formation professionnelle ak artisanale ñewon fi ci centre de santé ou action sociale bu tiaroy Gare ngir waxtaanee ci naka la ndaw yi mëne am ay formation professionnelle ci dire bu gatte ci noné bëggoon ndaw bu nekk mëna bind demande ngir am liggéey ginnaaw boobule formation euh, dañu ñëw en tant que service d'orientation nga xam ne ñun euh, suñu yitte yépp mooy que nan la nit ñi di def ba xam lu ñu fu ñu bëgg a jëm am euh, li ñuy wax projet personnel ak professionnel parce que li may faral di wax rek ku xamul fi nga jëm doo gaaw a yegg te yoon bi léeg-léeg dana metti metti boo xam ne wala mu dëng-dëng boo xam ne boo gisul ku la ci guider danga nga da ngay tourner en rond peut-être fa nga jëm doo ko xam ministère bi nak teg ay am ay bànqaas yu bëri tay tassé nañ fi mo xam direction artisanat la direction euh, apprentissage direction emploi ak suñuy projet yu ñu am PDCG bi ngeen di dégg ak PF2E ñoom ñëpp ñëw nañ fi tay pour léralal population bi wax leen yan opportunité lañ am pour ministère bi jàppale leen ñu am formation ñu jàppale leen ñu am projet euh, d'insertion parce que politique gu ministre bi mu ngi ko teg ci ñaari euh, ñaar laa ciy lim parce que fi mu ko teg bëri na mais am na ñaar yoo xam ne ñoo gën a fës mooy ñi nga xam ne dañoo jàng seen jàng yeggul ñi nga xam ne mësuñu jàng dem école ñi génn ci daara yi ak jigéen ñeeg ñi nga xam ne daal euh, école amuñ ci lijaasa ñooñu la wax ne nañu xool nuñ leen di Euh, utali ay filière de formation Mame Diarra Diop gi ñuy xamal na ni que dina dimbale ñi nga xamante ne seen ay diplôme ah, ah, loolu mooy lu ma doon wax léegi xam nga liggéey euh, dafa am lu ñuy wax emploi nga dem uti liggéey euh, ci benn entreprise mu jël la foofu ñun dinañ ci def accompagnement ci nan ngay bindee sa demande nan ngay taxawee entretien dafa am dafa am norme parce que doo ñëw rek euh, ci entretien comme ça té guidé wuñ la ci lool ben fànn la mais dañu gis né année yi emploi bobu dafa rar amatul presque xalé yu bëri té li doon waral ñu jang ba dem université duñu am liggéey moy amuñ métier en réalité dañ naan la man def na géographie wala dem mais luñu mën bo leen ne lu mën amuñ luñu mën luñu la mëna tégal lo xamné xam mën nañ ko donc amuñu métier donc même que dem université pour me dire il faut me spécialiser C'est ça qu'on appelle la formation professionnelle donc changement de paradigme nous nit ñi formation professionnelle ce lañ nous ñu changer ko nouvelle dernièrement le président de la république en a parlé les métiers du numérique même nañ même covid on a développé une plateforme e ci ministère à travers euh, kii bi plateforme ci la xale yi di ressources numériques. kenn di njiitu Ewakel service di wuyoo ci turu Mamadou Lamine Dabo di ñu xamal ne dafa jóge bitim réew rek ngir daal di contribuer fi ci réewam su ko defee ñu daal di mën a créer ay ndaw yu dynamique. Euh, man dama demoon maa ngi woon États-Unis mais j'ai pris ma décision nous sommes sama pour contribuer je euh, ma aussi dama ne kenn ku fu kenn ku nekk fa nga dëkk yow yaa koy taaral donc ma service avec des ingénieurs avec des experts euh, donc nous ngi doxal euh, objectif bi mooy dañu bëgg créer des citoyens actifs faire xale yi aussi ñu am formation encadrement orientation te tay xalé yi bëggu ñu doon suñu ay doom bëggu ñu ñu doon ay suiveur bëggu ñu ñu doon ño xamné dañuy jouer ay second rôle